ميتيفي ميتيفي ميتي تي في waaw salaamaaleykum man la Chingo Sy président association africaine de famille directeur exécutif de l'ONG Africa Kamena, ici à Kermassar, acteur social, acteur de développement et acteur culturel. Mhm. culture, pour la première fois dans Kermassar et ses alentours nous organisé un concert pour Melni, un concert bi nga Infinity Production et Africanité Family nous pour Andy euh, Wali Balago ici à Kermassar le 14 mai deux semaines après le Ramadan pour innover et montrer aux Sénégalais que Kermassar

wala li ci ëpp ñu jël ko ko centre de santé bi ak district sanitaire yi nga xamante mi ngi Kër manqué ay lal ay pousse-pousse ay médicaments ne nañ ci les premiers soins loolu nag dañ ciy profité di ci je pèse bien mes mots mooy kilifa réew mi monsieur Macky président de la République du Sénégal moom la ñu bëgg mu ñëw nekk suñu parrain concert la première dame ndax lu jigéen bokkul baaxul. Nous avons aussi Marème Faisal pour nous aussi première marraine pour conserver bi am envers bi voilà président de la république moom sax mo département. Hmm. waye mu melni département ci biir département bi culturel ba légui ñu ngi joy. amna lo xamné na leen centre culturel fi mu plus d'une dizaine de millions pour collecter ko durant 15 jours nous avons a def li nga avons ne et concert bi donc soxla nañ centre culturel soxla nañu ay maison de production yu avons a studio mais nous avons concert bi bu ñu ko président de la république encore une fois gis Kermassar nak Massar nag nekkatul Kër Massar bi la bi nga xamantene li fi ci population li fi ci popularité ëpp na ay régions du Sénégal amna la région yo xamantene li yéwo bir y ci région yo non parce que romb nañ pas un million de jëm deux millions d'habitants. parce que les six communes la mo wara ñu concert bi ni euh, la bi nga xamantene dinañ ci mëna woné que Kër Massar euh ni toy ni mel ak intellectuel yi nga xamantene ci diversité yépp mi ngi parce que Les dëkk la bo xamantene dëkk ay nit xarañ ay nit nga ay nit ay nit nga pour wan loolu à tous les sénégalais et à l'int ak ñi nga xam ne ngi ci monde international bi. Nitte TV Nitte TV. Nitte TV.